may wax rek Alioune Badara Cissé yàlla na ko yàlla xare àjjana ànd nañoo ak moom ànd bu rafet ànd boo xam ne nii ma nga commencé ci daayira des étudiants mourides waxuma isbu tarxiya de dem laa wax daayira des étudiants mourides ki nga xam ne moo jur is bu tarxiya ñu ànd yàlla defaat ñu bokk nguur ba tey yàlla jël ko yàlla na ko yàlla xare àjjana tey ñu xam ne Sénégal daal ñàkk na doom benn ci doomam mi nga xam ne nii gën jëriñ nañ ko bu baax a baax jërë ngeen jëf. Euh, ndax euh, ki nga xam ne mooy woy wàññeeku bi tey yàlla dafa defoon ñu xamante woon depuis ñu nekk tuuti tànk nekkoon euh, daayira étudiant euh, te defe naa suñu relation yëpp ci loolu la tegu woon muy taalibe liggéeyal Serigne Touba di sàkku ngërëmu Serigne Touba te defe naa suñu egsee fii tey ba liggéeyam wàcc fii yem fii moom yaakaar naa ne bokk na ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla sëñ Touba euh, bég na ci ñoom ndax ni ñu taxawoo yoonu murit bi ndax yoonu murit bi daf ko assumé woon daf ko assumé woon à à à beaucoup de points de vue daf ko assumé woon ci jikkoom assumé woon ko ci euh, ni nga xam ne moom lay doxalee ci comportement am assumé ko tamit ci liggéey. waaw ci liggéey ndax li sëñ bi doon wax rek euh, ñun ñëpp nañu jël discipline prière def ko loo xam ne mooy suñu doctrine moom ci loolu la tëdd woon defe naa tey jii euh, loolu lañ ko mun a seedeel ndax loolu rek mooy sax fa mu jëm nii li mu liggéeyal sëñ Touba defe naa moo ko fay jëriñ ndax ku sëñ Touba euh, kii sant ku sëñ Touba gërëm yàlla gërëm na la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm na te moom léppam daf ko joxoon Serigne Touba ci wàllub liggéey nag wax dëgg yàlla defoon na yàlla defoon na ñuy ñuy ñu nekk ci cabinet bi ensemble euh, ànd ak le président Macky Sall jàppale ko lépp loo xam ne moom mun na ko munoon na ko def ba Macky Sall euh, tey jii toll fi mu toll Alioune Badara Cissé def na ko gàcce ngaalaam def na ko ab beaucoup de point de man mi bokk naa ci ñi nga xam ne moo moo ñu njëkk a convaincre ci ñu ñëw jàppale le président Macky waaw bokk naa ci ñi nga xam ne moom moo ko dox moom moo ko dox ci loo xam ne wax dëgg yàlla jafe woon na lool waaye ñu nangul ko ko ba dem ànd ak le président Macky Sall euh, ci biir tamit liggéeyu gouvernement bi bi mu nekkee ministre euh, des affaires étrangères wane na fa xarañ boo xam ne ndax moom yàlla daf ko mayoon xarañ ci tubaab nee naa suma xarit bi sànq rek euh, Alioune Badara Cissé ni mu daan làkkee tubaab ca Senghor lañ ko gëj a dégg sa Senghor la ñu gëj a am kuy làkkee tubaab ni aline Badara Cissé di làkkee tubaab waaw bon defe naa tey jii yal nañu yàlla euh, nañu yàlla nañu yàlla euh, dimbali taas ñu ci barkeem ñun tamit lépp loo xam ne ci wàllu ñaan lañu def nañ ko te yaakaar naa ne loolu rek lañ ko deseel fi mu nekk di ko ñaanal euh, suñu xarit yi nga xam ne moom la ñu àndal docteur Moussa Silam yi euh, nga xam ne xaritam la woon seen relation ci xam-xam rek la tegu woon ak jëriñ Sénégal waaw kooku moo doon Alioune Badara Cissé tey jii euh, waxuma Sénégal rek mais c'est toute l'Afrique Afrique bi yëpp moo ñàkk moo ñàkk seen doom su ma soxna rek démb mu may wax ne bibliothèque moo dem ndax xam-xam bi nga xam ne. yàlla dénkoon na ko noonu la euh, wàcce woon boppam tamit noonu la wàcce woon boppam noonu la munoon a jaamu nit su la gisee li mu lay woowee mooy baay baay diw baay diw baay diw loolu xam nga forme d'humilité la te yàlla mayoon na ko lool waaye loolu yëpp ni ñu ko jëlee taataan ko ci jàng bi nga xam ne ba ñu bokkee euh, euh, daayira daayira étudiant nga xam ne ñun Saal sëñ Salim Mbubb ca jamono jooju moo doon suñu président moom mu ñëw bokk ci nañu njëkk a jàng ci daayira boobu mooy tësaw di sixaar te moom mokkaloon na ko ñu jógee ci tësaw si dem ci kunkaati man mokkaloon na ko ñu dugg ci nax ju mokkaloon na ko enseignement yooyu nag njëkk ci moom moo waraloon nit kii tey waa Sénégal yëpp xam ci wàllu xareñ humilité ak loolu bon nañ ko ñaanal rek dal na ko yàlla xaare àjjana jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi waxaat ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal sëriñ Muntaxa xaadimu rasul mu yàgg fi lool ci wér waaye tey bis bu métteeti la euh, bis la boo xam ni ni tamati liñ ci mën a jàpp mooy ab jullit la woon liñ ci mën a jàpp mooy taalibi seexul xadim la woon liñ ci mën a jàpp mooy diir ñu ngi ànd ci yëngatu yi ci àdduna ca jamonoy Abdoulaye Wade ba ci jamonoy Macky Sall yi mboolem fonction bu mas a yor ci àddunaam foo fekk fu nekk day wane ne taalibu Seexul Xadiim la ñun ñi nga xam ne dañoo sant Mbàkke di ànd ak ñoom ci yëngatu yi fu mu mas a nekk ci àdduna ak garaat bu mas a nekk ci àdduna boo ko fekkee dana jëkk wane ne taalibi Sëriñ Tuubaa la kon ñun liñ ko mën a seereel ak taalibeem lu wér la bokkut ci ñi nga xam ne xëy na taalibi biti li nii waaye taalibi gu mu doon dund ci biir xolam la ba tax na ñu ngi koy ñaanal Seexul Xadiim gàttanu ko xare ko ci yàlla xare ko ci àjjana gën a kawe jàpp nañ ne euh, moom ci jëmmi boppam di Alioune Badara Cissé ak taalibeem ak gëm sëñ Tuubaam kenn waxatu ko ndax ñëpp xam na ne ci jamono Hizbut Tarqiyyah ba ni taxaw di nekk ay étudiant fa la tàmbale woon kon mën na wax ne moom dafa dundoon ak nekk ci arme ab buñ ko doon woowee ab armée yoonu murit di ko dund dundeen woo xam ne ci ak taalibe yemutoon ak kenn kon loolu lan mën a sedd ci moom mënuñoo wax ci moom lu dul ci wàllu taalibeem mënuñoo wax ci lu dul gi nga xam ne gëm na ko Seexul Xadiim kon foofu lañ ci yem ndax seede soosu lan mënoon def ci Alioune Badara Cissé jërëjëf